ay ca bàkk ba jib na de yéen kay groupe des médias xëy dikk ci Ousmane Sonko mooy les xam ne téeméeri milliards cin fëqul bënul yax ba sa ne mes Sonko nee na ani koppar ba te nag Macky Sall na wax si Ali Kalla gi moo gën muy wooteb dialogue boo xam ne nii gëm sa tous vox populi ne dialogue boobee dee su doon liir buy doog a juddu bi yeeboo ñu xam ne dellu na ndax Ousmane Sonko tuddee na ko ndem si yàlla si ba noppi nag yekk lu mel ni xamee ku jëg politique gamu jàppee ni danoo yaafuus te jimboori Sall mi nga xam ne dafa jàppee boppam buur dictateur na xam ni kon daal koor gi dikk na dinaa jàkkaarloo moom te duma ko may dara nag réew mi la nag ay caaxaan ay tàppale moom mi ko woote dara safu ko askan wi ñoruñu ko tey yolos yolos yi noo ne ne ay personnalité yu crédible lenu ñoom la ñu tànn ñu war a jiite dialogue bi anit fi ñu nekkoon si juróom-ñaari yi nga xam ne Macky Sall moo fi nekkoon di dicté ay loi am caxat-caxatee nguur gi salfaañi ko Sonko nee na lii rekk nag laay laaj sa 24 heures les échos ni ko Famara Ibrahima Sagna de ak ku jëkk politique gi Ousmane Sonko mayu leen dara l'évidence ni neexul ba neex nag waaye Ousmane Sonko mii de ga xam ne mooy dawal gaalu ku jëkk politique gi l'exclusif ni loolee rekk tax mu delloo loxo Macky Sall may tàllal wootab dialogue ndax nee na ay

yeewu Majib Njaay mi nga xam ne doxkatu jàmm bi médiateur bu mag baa ngi nii ñii ñooy juróomi doomi pendanaar yi nga xam ne ñoo war a jiite waxtaan wa le témoin ni ponkal maa ngi nii faamara ak ñamu yàndal général ñaa moo war a jiite kon commission cellulaire ba de juróomi doomi pendanaar yi loo ci xamul tey ji lañu leen war a installé fa coow li installé kay moo di parti démocratique sénégalais ak Omar Sarr ma demoon wuy ji si ndorteelu dialogue nee na li ñu intéressé ñun du lenn lu dul démocratie delloowaat ci place nga mu amoon fi ci réewum Sénégal Khalifa Sall Karim Meïssa Wade ñu bàyyi leen ñetteelu mandat moom kan xalaatu ko waxtaanewuñu ko sax le solo yéen kaay moom dikkaat ci coppite ga nga xam ne rek fës kéene nañu ko àndi ci code bu collectivité territoriale bi ak la sa dëxëñu libération moom la mu dëxëñ moo di rek ek yi ma nga xam ne moo génn loon paak benn policier benn a morom de bi nee sa raaya la daanu de laata muy jóg nag si la ko métro bi tànc mu dox fa ñàkk bàkkenam jeexaleex l'observateur ak sunu gaynde football yi Aliou Cissé tey ji la war a siwal li sub ya nga xam ne ñoo war a dem CAN sa Égypte te soo moyul nag Abdoulaye Diallo Saliou Cissé Henri Savet daañ ci bokk de lu mu si manti doon daal dafa jot dafa jot de bu ñu jëlee coupe dañu ko war a jël bu ñu ko jëlul it dañu ko war a jël ndax danoo coupe nanu ko fast track mu ngook dig daje i kaay jaa ngeen jëf